Je sant d'abord maire bi nga xamni mo ñu dalal euh, ak suñu délégation bi nga monsieur le préfet Ndiaye du département de Guédiaway moo ko jité wër nañu euh, commune yi nga xamni ci département bi yépp ñi nga xamni non la ko président de la république bëggé nous euh, ñuy célébrer le premier samedi de chaque mois des activités de nettoiement yo xamni impliqué dañ ci impliquer l'ensemble des populations les associations, les regroupements, mais aussi les autorités déconcentrées, à l'image du maire qui nous accueille aujourd'hui. moom tam ñu koy bu bi euh, département de Guédiawaye aussi am nañ fi lu toll si juróomi téeméer ak juróom-ñaari téeméer ndaw yo xam dañuy liggéey fi ñenti téeméer ak lu ci programme présidentiel xewu ndaw lañu bok lañu loolu tam am na solo tous les jours même su fekkee dañuy woo nit ñi ci setal benn yoon ci mobiliser moyens ay camions pelle mécanique ak personnel bi ànd ci ak population yi autorités municipales yi ngir instaurer la culture de propreté manam cet bok ci suñu aada ñu koy sa suné li ci ëpp solo aussi moy ñu tàmbali ko ci famille parce que président tam loolu la santaane ñu déparé ko ci kër yi def ko ci école yi mais marché yi aussi amna solo ndax gis ngeen aussi ñu ngi commencé tourner bi ba légui li nga xamni mom moom lañ constaté ci marché yi mais amna ñu aussi contenté bu baax di fessel préfet ndogal li nga xamni moko ci jël ndax bépp service euh, étatique boo xam ni am na ci rôle lu demee ni ONAS wala yooyu ci problème eaux usées yi moom jox ay instruction pour que ñooñu aussi ñu woo leen ak service d'hygiène ngir ñu mën a jàpp ci liggéey bi démb ñun si xaatim nañu benn convention ak ONAS pour commencer euh, liggéey ci opération pré hivernale yi donc nañ jéem a seet ak directeur général ONAS nu ñu ci mënee boolee problème euh, de gestion des eaux usées bi ñu gis ci yenn marché yi fii ngir daal mbir mi gën a soppeeku pour que sénégalais yi aussi mën a dem ci marché yi dox ci mbedd yi te duñu am benn jafe-jafe. Oui, ce qu'on a constaté, c'est que dans la plupart des marchés, il y a de gros problèmes d'écoulement des eaux, euh, euh, des, eaux pluviales et aussi même des eaux issues des activités dans les marchés. Donc le préfet du département a donné des instructions pour que l'ensemble des services étatiques soient mis à contribution pour trouver une solution pérenne à cette problématique de gestion des eaux usées. Mais plus récemment, euh, hier particulièrement, nous avons signé une convention UCG-ONAS qui se projette un peu dans des activités spéciales pour la préparation de l'hivernage. Donc nous allons discuter aussi avec le directeur général de ONAS pour voir comment nous pourrons inclure dans ce cycle d'action prioritaire les différents marchés qu'on a visités aujourd'hui à Guédiawaï, qui ont essentiellement des problèmes d'exutoire au niveau de la collecte des eaux usées, mais c'est des choses qu'on peut régler parce qu'on a des équipes de curage aujourd'hui, des équipes mixtes ONAS et UCG que vous allez voir très prochainement à l'œuvre. Merci.